ভেবে বাচ্চাটা jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci jambar news mbokk yi nuyu nañ leen am contenté ak mbékté comme ñu leen koy defalee saa su ne di leen balu ak bu baax ci jullu gi ñu jógee di leen bal ak di ñaan yalla suñu borom bo boole ñu jéggal ñu ngi togor nak ki nga xamante ré le roi des arènes muy Modou Xarañ Lo doon champion nek ndaanaan ci lamb don model et puis nek référence sa yo ko déggé bu yëkëté ay cadeau nga xamni cadeau yi cadeau dal la cadeau tey la mais cadeau yu and ak respect tay nak ñu fekk ko ci salle de musculation bi muy entraîner fasiyene waxtan ak mom lu bare bare bare ci walu làmb ginaaw bobu dañ koy nuyu bàyyi ko mu nuyu mbok antono di suko defé ñu waxtan mbeur ma lay nuyu bax di la waaw ma ngi lay fay bay jiri di nuyu téléspectateur jambat news yep mhm. di balu ak d'abord ñepp ci tabaski bi ñu di bal ñepp ak di wax yalla nañu yalla boole bal di koy teewee at yu bare bare te mu ànd ak wér ak xewul yu bare bare ha ah. mhm. vraiment di nuyu Senegal ñuy diaspora bi nuyu supporteru Modou hmm. Xarañ Lo yëpp ñu hmm. ziar ñëpp sha allah tabaski bi noko dundé wa tabaski comme ni ko ñëpp di dundé rek hmm. ah, ha xam nga feetu ak njaboot gi ha soxna tout tànk ak yaay frère ak sœur yi ñëpp daal xam nga dund ko en famille rek quoi ay neex trop ma sha allah sha allah ngay préparer sa combat bu reuy nak ñu dox sa ak Siteu yaakaar naa ñu bari nee nañ du combat. Mm. mais événement la bis la. bis boobu noo koy waaje waaw combat la ñuy wax ne du combat la ñu xamul rek. Mm-hmm. làmb du tuut. parce lu ñuy wax chaque fois rek karab ci kaw lay fekkante encore du minimiser wala def dara dafa def ay preuve ba yegg si tey ñu war a bëri combat bu ma respecté la combat bu ma fonk la. te bu jéegee ak jàmm incha allah ñëpp dinañ xam fu ma teg combat bi. moom di ko ñaanal wér di ko ñaanal sam bopp yàlla mooy ñu talaak fekkee ba ba ñëpp dañ xam ne combat mag la incha allah. Mm-hmm. Mm-hmm. sa biir wax yëpp duma ma dégg nga jaar ci turam da naan moom. maa ngi koy ñaanal wér lu tax doo jaar ci turam. ah habitude la rek amul lu may ba ci jaar ci turam Siteu. Mm-hmm. habitude la rek lu may wax moom walla non Siteu. combat bu mag la daal incha allah. Hmm. dama ciy wax xam nga dañuy wax rek fu war fu war. Hmm. wax waru fa bari yoon. Hmm. Eh, ci làmb lañ nekk faaw mu jaay ko loolu moo tax mais eh, bu doon man kese ci li ma nekk laay nekk bu bis ba incha allah. maanaam defante ji bu soobee yàlla. dafa nekk États-Unis nekk ci préparation am ne ci biir ruqam. mais kenn xamul Siteu ci lu mu nekk jékki-jékki rek am benn message bu mu génnee lancé ko mais li mu wax mooy Modou Lo maa ko mën téeméeri yoon ak fukk ak juróom ah xam naa xelam lay cokkotaan rek moom dafa bëgg soulager boppam quoi moo tax mu ni moomu mën ma dégg sax muy wax xew ma bu ñu dajoon mbagitu biscuit man duma ci lekk benn. ah kon dégg nga loolu. naa dégg naa loolu mais li may wax rek waxoon naa ko naa ko waxaat wax ji lu mu gën a metti mu gën a metti ci moom lu wax ji gën a bari mu gën a métti ci moom bëriwuma pour foo bëriwuma pour caaxaan. làmb dama ko def métier mu yàqal ma métier yu bari ba tax na su ma wax ju bari sax jaru ko waa lu mu bëgg wax dama koy xeeb hmm. mais bu ñu sëgee dina xam ndax bu ñu dajee paquetu biscuit man maa ci lekk dara wala mu mënul ci lekk dara hmm. nee na góor yàlla dëgg moo koy dékku ci biir discours bi yaa ngi ko dégg mu koy wax mu ne moom góor yàlla dëgg ku am fit dëgg moo koy dékku moom daa mel ni kon li muy wax am na lu muy xaar ci yow ci wàllu fit ak yooyu ah moo ko wax de du sama yow li ma lay wax rek xam naa boppam boppam lay soulager quoi dafay wax pour bégal boppam wala ay supporter am mais ñuy connaisseurs yi ñu xam làmb li ma lay wax làmb la du ma waxee mukk mm-hmm. mais bu arbitre sifflé dina xam les hmm, pouvoirs hmm. est-ce que jëloo sa deux derniers combats yi mujj taf sa adversaire yoy ak Siteu te xam ni Siteu tarkindaa la da mën bëri <laughs> nda nan la ci walu de ma de tay champion mo tax ñu jël ko parce que limay wax rek ma day combat bi taxaw na ñu bari na rey di combat def ni non mais dama gëm ni dafa def ay preuve puisque ku bari la de guerre amoto kenn ku lay bañ mhm. lool mom motax ma jël ko du ay may sens ak ñom sen non parce que lamb la daw mako pour may sensé non du jour ba lepp luy sensé yàlla na féete sama côté inshallah hmm dama wara a mom wara war a mom bëre moom te incha lu bu arbitre sifflé dañ ko xam ba cité ban pied lay jital droite kana pied droite yakarna 6 adversaires bëri nga ak ñom ci pied droite te da yomb ci yow trop muy Balla Diouf muy gire Bordeaux muy deux derniers combats yi Ama balde Boy Niang kan. am na keneen ku des de. Eumeu Sène Eumeu Sène. loolu yëpp am na amaana yaa ko ci seetlu quoi mais man wax dëgg yàlla su may bëri mbër man li ma wax sama mënin laay dem def xooluma lu sama adversaire mën fii la foore wala non man li mu mën moom loolu laay ñëw appliqué dem su ma yoon ba tax na ay droit de gauche ki hmm. ay pied derrière yooyu du ma ko sax sóoraale. pied droit de arrangé na la Modou. waa dafa tombé rek sama bëri gën a yombee foofu yow xam naa yéen a ko seetlu quoi mais man aw ma kii kii bëri gauche ak droite ah ñaar tànk yëpp la bëree vraiment. moom aussi bëri na ak pied gauche bëri na ak pied droite. Mhm. naa boo xoolee rek diggante ma Papa Sow Papa Sow pied mais gis nga combat bi ni mu yombee ci moom macha allah diggante ma ak gis nga aussi Zos sax pied droite la mais daf ko dóor mu daanu. combat yooyu da ngay toog di étudier booy bi di xool lan mooy fooram lan mooy faiblesse am fi nga toll ci làmb. non loolu mënul ñàkk mais pas période bi quoi te am na fu làmb ji toll di nga étudier pour xam teg say stratégie ko ak say coach. mais man yegguma ci période boobu instant yi maa ngi ciy liggéey xam nga puissance ak yooyu noonu foofu bu ñu fa tollee rek dañ étudier li ñu war a étudier ci ñoom coach yi dañ ñu tegal stratégie lu ñu war a bëri mais daal gauche ak droite lépp man laa si lu mu indi rek bëri moom te dama ja gëm dama koy jàpp daan ko incha allah. Mhm. gis nga ko instant actuellement dafa am doole. instant yi moom macha allah. ah mais loolu laa bëgg xam nga bëri mbër ñëpp naa ne yaa ko bëgg def nii loolu moom man man man souhaité ma loolu quoi dama bëgg mu liggéey xam nga ne ci forme baax a baax ñëpp xam ne liggéey na moo ñëw jàpp ko daan ko. Mhm. victoire bu ëpp méritant ah. ah oui sa adversaire xam nga liggéey nu mu war a liggéey ba ñëpp xam ne kii liggéey na. mais eh, bu dé bénn koñor la bo ñëwee japp ko na nga ah, mo gëna liggéey mais eh, dama bëgg mu liggéey lu mucc ay ñëw bis ba ma japp ko daan ko inshallah allah nga taxaw samp jaaga jàkkaarloo sita di ko jox kurpañ mu la koy jox ak taay bi mu yor non di ah, yow ah, yow quoi mais yow yow ya ma yab quoi amul mbër bu mën doon bu sañul taxaw xex ak yow mbër daa ëpp Bombardier ci làmb ji sha allah am na ko yàlla defal cat. dama xex ak mom wala si waaw ah, te Bombardier njool la sha allah long large. aw mo ku ma ci xex wala def li ma wara a def quoi amul hmm da sét mu toll nu mu mel damay ñëw appliquer li ma wara appliquer. hmm dam suma am. Hmm. Hmm. ma dégg ju début bi Siteu dafa mel dafa amone kersay Modou Lo waaye keroog ni ma déggee mu wax daa mel ni kersa boobu deñ na parce que bi ngeen signé contrat moom la jàmm jeex sa diggante ak moom. maamu yaay kersa amu ci parce que li may wax ñun mbër boo ñu fekkee ñu toog da nga ne naan ñoo bokk ndey ak baay dañuy kaf dañuy rey mais avance moom bu ñu ko lekkee moom ay kersa ak yooyu yëpp fee lañ koy teg ah adversaire la saa yi xaal ñu ay saral ak ñoom seen déedéet xaal di saral de. su la lamb ja non. Hmm. ci respect ci fair play waaye xaaruñu ci ay seetal non. ngeen defee seen première face to face li nga gën a bañ ci làmb si te def la mu laal la wala mu bumax la lan moo ko ci mën a fekk. non ay laal ma wala yan kuy bëre kay doo bañ kenn laal la. non face to face bi paase gis naa am na mbër mu laal. kii nga bumax. non am na nga xam ne rek moom dama am samay principe li may bañ dama koy bañ waaw. limay may bañ dama koy bañ toujours té loolu du ben yoon xam nga sama anniversaire bi dëgg na ko def ma wax ak mom mu defaat ko ci la ko def li koy def nah, hmm quoi. ma sha allah mu do lo xamante nak aussi ni ko mëna xaar ci lamb seen premier face to face. Hmm. ndax ku ne xam na ni yàqamti ya nañu amateur lamb yi ya nañu sita ak modlo ñu jakarlo wala khas khas lo ñi ne ay mbokk lañu ñii ne combat bi du neex ñii ne combat bi du ñu ciy xaar mu mënuñu ko ci gis lan nga ci mën a xaar. li ma lay wax daal wax naa la ko duñ ciy xaar ñu ngi xaar ci bis bu mag lañuy ñuy xaar ci bis bu neex ay xarit ak mbokk ak yëpp koy teg ne la balaa mu ñu paase. tu as compris instant ay adversaire lañu pour moi bis bu ñu war a bëri su jeexee nag mu soo a jeex mais instant yi moom. adversaire la waaw. Ah. Hmm. Ah. tarkindaa yi actuellement dañ laa may jàmm parce que yal min bi dugg seegul ñu ne Siteu bis bu wàccee aéroport Blaise Diagne. Hmm. ci la Modou loo di ñàkk jàmm pression boobu la ñu ko nar a teg pression tarkindaa yi lan nga koy xaaree. man amul ku dul yàlla ku mu mën a xam jàmm li may wax Sénégal awma ci sens interdit awma lu ma ciy sóor xam la fu mu bëgg a dugg laay dugg fu mu bëgg jaar laay jaar. tay waxul lamb ak pression lamb lolu man dépassé na fofu quoi. parce que lu ma déggul ci lamb am voilà. wa tax yoy mom moom ñu mu sa ba mais ñu doon béré ak Siteu bokul de mbolo mi. dayo bi nah. borom dëkk bi min bi. borom dëkk da borom jàmm gën. non moy borom oh, dëkk bi. borom dëkk bi loolu yow la wax ah ay da nga borom jàmm gën. ah moomul dëkk bi jamu gën la moom. mais fa la moom dëkk bi yow tamit ji. ah min bi. non. <laughs> doo dégg loolu borom dëkk bi. wala wax wax lu benn waaye waxoon dama wax naa xaar sax bu ma. <laughs> waxal rek. da ngay ci loolu. non booy borom dëkk bi ngi yow dëkk bi. xam ne laaj na booy. ah ba jël titre roi de moom yaay borom dëkk bi kenn waru ci mën dara. loolu xam ne laaj na. Siteu bu ñëwee jàkkaarloo yoon ne la maay borom dëkk bi yàlla min bi ñëw na loo koy wax. mooy <laughs> yow. munoo munoo gént gént sa gént morom dañ ko bàyyi mu ñëw jàmm incha allah ba jàkkaarloo. Hmm. waaw lépp na expense loolu mooy gën a neex. mais pas nga toog fii yow di ko di ko di ay question hmm. waaw. mu ngi lay xool mu ngi états ne loo koy wax. naa ko xool bu baax non di ko ñaanal jàmm rek. lu mu liggéey lu mu liggéey na ko xeeb. ndax ñun ñoom ci lu ñu war a nekk. comme toujours du ñuy caaxaane làmb bis la bis bu mag la. ñu ngi koy préparé di ko waaj ni ñu eh, ngi ko war a waaj ak suñuy mbokk waaw comme ni ma rek di ko ñaanal jàmm hmm. ba mu ñëw Sénégal ak jàmm ñu def face to face bu neex bu nit ñëpp di xaar ah, incha allah hmm. pour jaay suñu combat incha allah. Hmm. ku ne xam na ni say supporters dañ la bëgg ba amuñu ci yow sago. Siteu tamit aussi noonu ay supporters am dañ koo bëgg. ba amuñu ci moom solo mhm. te yéen ñëpp ay doomi Sénégal ngeen mhm. lan ngeen mën a wax seen ñaari supporters yi ñu xam ni yéen a war a xeex ci digg géew bi mais ñoom supporters yi dañoo war a jëndante crème jëndante glace bu ñu ñëw signature ba mun nañ sax bokk oto waaw loolu moom li may wax fii bis bu nekk am na fii mhm. surtout man laa wax bëri naa bis bu ne bu am coow bu nekk bu nekk bu nekk mais li may wax rek lépp lu ñu def dañ ko teg ci fair play que làmb la sport la té ñu bëré pour mayenté xaaliss hmm ay nak limay wax buñu waré jaay seen combat dañ koy jaay nak ci supporter di leen wax ñun ñaari mbëri lek avance defante bi ñu ñaar la mu ci biir géew gi muy lepp mais ci supporter dañ leen wax chaque fois lu ñuy mëna def muy signature rek bu ñu yeggee ci lamb ja manam ñuy ñëw ak discipline parce que sport la te ku bëgg jappalé sa mbër da nga koy dimbali ci lu mu bëgg d'abord moy jamm ku ne sport ñu dafa war a boole xam na ku ne mën ngeen ànd ngeen dem supporter seen mbër kee daan ngeen nuyoonte xam nga akolaatante ku nekk dem sooy mais sport la nag mu bëri suñ ko waree jaay dañ koy jaay après bu jeexee mu jeex ko hmm, hmm, hmm. macha allah kañ nga fas yéene commencé waat entraînement yi dem géej def ni nga daan def mu topp la langal la ko rek. non loolu kay moom jógee wuñ ci ah. yow la ñuy yow la ñuy laaj kay kañ kañ kañ ngay ñëw ñoo. nañ bàyyi nañ bàyyi ba borom dëkk bi dugg si. xam naa la borom de. Ah. Ah. waaw di kontaan xam nga encore di nuyu suñu supporters yëpp. Mm-hmm. di ñaanal jàmm di ko di leen di ko sàkku ci ñoom pour ñu ñaanal ñu allah. Mm-hmm. ñu ne Sénégal ñu ne diaspora bi nekk fépp ñu leen di bëggee ak suma fans club yëpp. di nuyu waa Parcelles 1 nekk ñëpp ñu leen di ziar ah. waaye allah di leen jox nag rendez vous muy le 5 juillet. يا بطل الله